Assalamu alaikum ci loolu na si jamu Alhamdulillah, Dembu Dembu dembu, dembu, c'est extraordinaire vous avez fait Une coaching extraordinaire El Tactico Les motos taxoon moto la El Tactico parce que dembu, c'est vraiment formidable félicitations je vous félicite toute l'Afrique vous félicite euh, merci monsieur le président merci monsieur le président bon euh, ñu ngi kontaan euh, ci félicitation yi nga xamante bi euh, merci monsieur le président mbir mi nii la mën a Sénégal équipe la boo xamante ni équipe bu mag je pense que Ni la mën merci monsieur le président El Tactico li gën a qualification huitième de finale li si ëpp solo ma gën si wane mbégte ak de mooy le fait que ñu nekk la première nation africaine boo xamante ni bi qualifié na huitième de finale ci coupe du monde bi donc loolu lu am solo la Sénégal gi content kontaan nañ ensuite bëgg nañ man daal bi ma xoolee ba xool Sénégal daal <laughs> kenn rek la ci xolam bon ah kenn kese la ci xolam bon. monsieur le président <laughs> je pense que Sénégal moom euh, benn bopp kenn mënu ko xaar ñaar euh, yaakaar naa ni euh, sénégalais yëpp wane nañ fulla ak fayda ak amour bi nga xam ni ak cofeel bi ñu wane seen dëkk. loolu moom euh, mooy li am jàpp naa ni amul kenn koo xam ni euh, euh, mbir bi naqari na la li nekk na loo xamante ni lu am solo la. non non non non non déet Aliou je vous dis politique am na ñoo xam ni xamatuñ fu ñu teg seen tànk ñëpp la naqari. ñëpp la neex mais du am na ñoo xam ni neexul leen loolu boo la ko waxee gëm ko el tactico <laughs> parce que aussi ni ngay tactiquer ci terrain de football noonu lay tactiquer ci politique je suis el tactico de l'arène politique donc suma la waxee rek lu am solo laa la wax. Euh, merci monsieur le président <laughs> oui parce que loolu moom euh, lu am la. Euh, parce que gars yi damay dégg ñu koy ñu koy faral di wax di wax ni euh, le président de la république euh, dafay taxal ma envoyé la benn photo <laughs> nga gis vraiment bi ma gisee photo bi sama yaram dafa daw. ban photo la noonu ban photo ban photo la noonu ma gisee photo maam Ablaye Wade vraiment sama xol dafa sedd. Euh, aussi li nekk na ci li nga xamanteni bi aussi tamit euh, motiver nañ xalé yi euh mu nekk lo xamanteni ne bi lu am solo la vraiment je suis vraiment content euh aussi tamit euh, Sénégal métti na lii vraiment li lu am solo la. ah d' accord d' accord waaw Ablaye sunu papa la vraiment lu am solo la pourtant man aussi man maa ngi am naa ay photo sax taxaw maa bàyyi la suma photo yi <laughs> nga gis sénégalais yi ni nga xam ne ko taxaw maa bàyyi la suma photo yi gis nga fofu gis nga gis nga gis nga ma foofu <laughs> maa ngi nekk noonu gis nga avec la jeunesse ah. ñëpp ay xale lañ xale yu ndaw macha allah gis nga ñoom ñëpp ñu daw si wutal si palais bi ne président il faut ñu laal sa loxo gis nga c'est très important. Euh, li moom euh, li moom li moom président lu am solo la euh, mbir la moo xamante ni yaakaar naa ni <laughs> Sénégal démb ñëpp dañ nekk benn bopp vraiment kenn mënu ko xar ñaar gis nga xale yi ni nga xamante ni bi noonu lañ ko soxla aussi ci palais bi aussi tamit am na yeneen yoo xamante ni bi vraiment yoo am solo yoo xamante ni xew na lii day wale ni Sénégal daal ñëpp ay sénégalais lañ et puis benn bopp lañ. Aliou walaay li nga wax noonu noonu la waroon a demee ko parce que bu doon si yoon rek la ñuy xool mbir mi noonu la war a tëddee mais taxal ma woon pour te dire que ni y a des mécontents si pays bi y a des de prouver ça xoolal fii yaa ma woon gis nga photo Ablaye Wade bi ma wan gis nga la aussi man ak la jeunesse sénégalaise mais taxal ma woon la waa li kenn mësu ko gis. victoire des Lions Le c'est lui hein, c'est ce gars-là c'est Songo. le Sénégal n'aime pas Sénégal bu n'aime ba Ablaye sol mayo yow aussi eh, nga gis ni nga pale mais ko bind ko. Euh, président il est-ce que ay manipulation parce que aussi. Euh, am na loo xamante ni ñun gis nañ ko et puis tamit euh, lion yëpp dañ ko partagé muy benn photo boo xamante ni euh, dañ ko partagé lion yëpp vraiment mu nekk loo xamante ni bii lu am solo la loo xamante ni bii ça n'a rien à voir ak li nga xamante ni bii moom nga ma envoyé nii je pense que taxal ma woon la ko. Aliou lii la laa wax ma ne ma ne déglu ma Aliou Cheikh yéen da ngeen a xamul El Tactico lu ma la wax mooy dëgg waa ji moom moo def lii. c'est pas une erreur lu erreur lu leer laa la wax lan nga naan partagé yi ak yooyu lion yi i ban lion moo ko partagé kan moo ko dugal ci seen groupe kan moo ko dugal ci groupe lion yi kan moo dugal photo bi ci groupe lion yi ah photo bi kan moo dugal lii si groupe lion yi il faut m'expliquer ah parce que am na yoo xam ne ko rapidement Euh, président li euh, lii yëpp ñoo ko doon partagé euh, Sadio mo ñuko envoyer après ci lañ ko jël ñu duggal ko ci groupe bi mu nekk loo xamante ni am solo la xam nga Ousmane ak Sadio ce sont des amis de longue date aussi après ci lañ ko jël mu nekk lu rafet xam nga gis nga ko ni nga xamante ni noonu la def baaraam bi. Ablaye Wade aussi tamit gis nga ko ni mu defoon baaraam bi euh, dafa yëkkati euh, ñaari baaraam yi soo ko yëkkati euh, benn baaraam bi loolu day wane ni lii mooy de. Aliou il faut que Sadio nag quitté si groupe WhatsApp bu Lions yi il faut que Sadio quitté si groupe whatsapp Lions yi loolu rapidement il faut que loolu ngeen arrêté ko parce que yi ngeen def nii mbiru caaxaan la football lañ leen sant yam leen si football te bàyyi vocal yi bàyyi leen vocal yi ak partagé yi génn leen réseau yi mun leen jël alalu Sénégal ba noppi ñu jox leen ko ngeen di lambar lambar yi di partagé ay photo lu ne ngeen siy dugg yëfu caaxaan yi bugguñu ko parce que les Sénégalais tamit ils ont vraiment kii te bu ngeen continuer bi day dellu si ah. lu leer laa leen wax que ce soit xamu leen dara seen mat démb bi sens rek ngeen am bu tus góo